ngir top sen chaîne Jazboul Mourid. demal Google Tapez Jazboul Mourid. bésul ben émission mu YouTube ci page bi nga abonné té activer cloche bi ngir am notification saa ñu dugalee vidéo sen chaîne Jazboul Mourid. di ngeen ko amit ci Facebook Instagram Twitter Jazboul Mourid. mi ngi ci war wi ngir liggéeyal mam Cheikh Ibrahima Fall ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوي جناني صفي اماني وزير برائي بارك امام شيخ ابراهيم Fall السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبكي نوي تيولو سي لامفال نغي لن دي نوي دي لن nuyu بو باخ باخ تاي نيانال سيرن شيخ tey المنتقى sëriñ mi fi Cheikhul Khadim sunu borom yagal ko fi lolou te mu wër tey beral nuyo ak ñaar sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall. mi toog jotaay maam Cheikh Ibrahima sunu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér di eh, ñaanal eh, Serigne Abdou Samad Mbakke moom Serigne Chouaï bu Mbakke sunu borom kattanal ko te yàggal ko fi lool ba yéene bi maam yéene liggéeyal ko maamam ju tedd ji Cheikhul Khadim mu defee ko nu kawe njortam te ànd ak mbokki taalibe yi am ngeen nii mbokk yi am lu lu lu lu lu jafe te te te te jàppandi. ci sang bu tedd bi di Serigne Abdou Samad Mbacké moom Serigne Chouaïbou euh, kenn dootu ko présenté ñëpp xam nañ ko ci yoon wi nday xam nañ ni maamam rek moo ko ñor euh, tey jii nag fii ci Touba Mbour kër Serigne ci Mbay Sey Ñang euh, ci ngan gu am solo gu mu ko doon defal ànd kaak nag sunu jëwriñ sunu magum taalibe sunu Serigne Serigne Gana Messere Maxtaar mu baax mi nga xam ne léppam Serigne Touba la Serigne bi ñu am tawféex ak Serigne Mamour Ndaw Baye Fall niñ koy àndee saa su ne mu fas yéene ñu bu euh, laa biiree ci euh, jotam ñëpp xam nañ ni ñàkk nañ jot lool macha allah waaye moom ku ko woo Serigne euh, xamatul ñàkk jot googee fas yéene ko ànd ak ñun si cosaanul yoonu murit ci taarix bu waxee ni mbokki yi bu ñu ko dégloo incha allah dinañ dégg lu lu leer nañ mbokk yi kon di ko santaat bu baax a baax te di ko dollee ñaanal Serigne Mamour Ndaw Baye Fall incha allah nuyoo. Euh, bàyyi kàddu gi sëriñ Gana Messere Mokhtar mu ubbil ñu euh, sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Chouaïbou incha allah waxtaan wi nga xamante ni mun nañ di exclusivité la incha allah ci Lamp Fall. Euh, jërëjëf sëñ Alioune Badara ci kàddu yu am solo yooyu noo ngi santaat bu baax a baax sunu kilifa bu baax gi di sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Chouaïbou ñaan sunu borom mu dolli ko kàttan ak wér bu baax a baax di ko jot leen nag mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Mbaye Mouridina. di sant bu baax a baax tey ci jotaay bi di ziar Serigne Gana Messere ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp euh, ni nga ko waxee rek xam naa ne dañuy daal di jox kàddu gi Serigne bi sàkku waxtaan ci lenn ci cosaanu yoonu murit euh, waaye li nga xamante ne bii Serigne bi daana ko jàngale te mag ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a topp ca Mbàkke Kajoor ba tey jii fii yoon wi toll lépp ay leeral incha allah ci kàddu Serigne bi di sàkku rek mboolem ko fi teew itam mu ànd ak teewlu. ñu déglu sëriñ bi jox kàddu gi sëriñ Gana Messere mu dalal sëriñ bi ñu mën a tàbbi ci biir waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, bokk yi ni seetaan ak fu ñu mën a nekk ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di am mbégte ci jataay bi nga xam ne ko seq ak Cheikh Abdou Samad mbacke moom sëriñ Chouaïbou jataay bi nga xam ne ko ànd sëriñ Alioune Badara Ndiim ak sëriñ Mamour Ndaw ñu koy taxawee waxtu wu nekk tey jii nag am taw féex yi ànd ak sëriñ bi ñëwoon fii ci Mbuur mu am taalibi bu mu doon seet si muy sëñ Alaaji Ñang ñu yendu fee jàng xasaayit jàng alxuraan waxtaane fi sëriñ Touba bokk yi sakk woon nag ci sëriñ bi mu indilaat nu ak fàttali ak ak nafar ci njëlbeenu yoon bi ci wooteb sëriñ bi ak wuy si gi nga xam ne euh, mag ñi wuy si woon nañ ko ko mu nekk ab fàttalee nekk it ab bind boo xam ne ndaw ñi jóg am yittee gëstu yoon wi tam ñor leen man cee yóbbaloo ndax kenn ku ne xam na ne euh, Cheikh Abdou Samad ab delluwaay la ci yoon wi ci koo xam ne dafa jóg ngir di gëstu ci xam doxinu sëriñ bi ak doxinu mag ñi àndoon ak ñoom Euh, lii yitte yi di bari bari mu xat-xat xam ngeen ne dafa jàppe moom toog ci toolub sëriñ Touba yi ni bu jihaad woote woon na mu war a jóge taxaw yor jeeseem taxaw ca xare ba noonu la jàppe yitteem jàppe ko aw doxiinam ba boo ko xasee tudd sëriñ Touba rek tudd lu jëm ci jàngale yoon weeg lu ciy laabiire nit ñi duutu yëg coona duutu yëg yëgit xat xataayub jamono ci moom mm-hmm. loolu it kon bokk yi luñ ci am ñu xam ne xataayub jamono la ci moom waaye sëriñ bi danañu ci diggaat yeneen jataay yoo xam ne danañ ko ànd ak yéen ngeen ànd ko sur bi sëriñ Mamour ak euh, euh, sëñ Aliou kon sëriñ bi bokk yi daal li ñu bëgg tey ñu laabiire leen ko dimbali leen ci mooy fàttali leen woote sëriñ bi ba mu jotee ndigal lu bàyyi ko ci boromam jaar ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci rabbi ashaabaka bil himma nu sëñ bi wootee woon ak nañ leen wuusee woon waaleykum salaam wa rahmatullahi wa ngi leen dellum nuyoo ni ko sëñ Gànna waxe bokk yi fi teewal télévision ak rajo Lamp Fall te sëñ Aliou Thioune ne ca bopp ba ak mboolem ñu seqal liggéey bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di sant ci taxawaay yi ñuy taxaw ci liggéeyal sëriñ bi ci télévision boobu yi ñu nekk di delloo ay laaj sama kem kàttan ak kem sama xam tey dogal ngànt ci lépp lu ma ci juum ku ma ko gën a xam tellement gàggante gannaaw sama nuyoo ci seex Cheikh Mouhamadul taxaa mi fi toogee jataayub Cheikhul Khadim di ko ziyaara te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba mboolem lim yéene liggéeyal sëriñ mu def ko ni mu ko bëggee waaw yoon wi moom dafa mel ne noonu nga ko waxee dafa mel ne sëriñ bi amul lenn lu mu sos dafa yeesal rek teg jiit la def waaye amul loo xam ne da koo dolli ci diine ji wala da koo sos ci diine ji waaye dafa dafa dafa dafa yeesal diine ji lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu wa bi yujaddidi sabil bilaa idan aw alami كون سوليسيون بيم اندي موي ييسال تا دو ген جيسي بلا عيدن او المي كين نونو سو مروم كين ميري كين اي متيتي دو ام وايي تي خالي مام لاي فاب اك تي جينجام اك تي وخام با جوبنت جي نيت ني با وون لين يالا وون لين سنة يونس صلى الله عليه وسلم موتاخ ci bi mu nekkee ci Mbàkke Kajoor donn waajuram suñ Mbàkke Mor Anta ci njàngale ma te teel na koo donn ci biir daara ja ay at suñ Mor wàcc liggéey te ba wàcc liggéey doyloo ko doyloo ak xam li suñ borom def ci moom moo tax mu woo ko cig wéet ne ko Amadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñaar rek laa lay ñaan waye bala ma jall ci lim ko ñaan nak dama lay wax kan moy seigne Mor seli seigne moy seigne Mor moy ki doon bokkum ñu bax ñepp waye bokk ñi ëpp xam-xam ci senegal yor université bi mak mag ci senegal gox yu ne nit difa joggé di jàng sax xam-xam ci mom ci turux yépp ak ci xéet yépp ba seigne mi ne ko ayamam bahal ahkami loolu ko seigne ci wax ayamam bahal ahkami يا غوش ظليلي أيا قرمو يا ناموس يا قطب زلجيلي كون دراجة أم فوفلو طول كوكو دبك دينك بوب مسيني فوفلو طول موي قطب بجامنوم موي قتل كاي ويريري جامنوم موي سنگ بجامنوم واي خملي يالله دفتي دومم جي موتا مونكو دمالا سخلا بنيويت مونكو نيار كيب لا سخلا مونكو واو Monako ko damay bëgg dem te bëgg nga dox sama digg ñaari malaayika ndax ragal na leen te bëgguma leen a gis Monako, ne dox sa digg ñom do leen gis bi hmm. gis sama njabot gi denk na la nga taxawal ma ci ba du ñak barke te du ñam sawara mu ne ko allah ci deggal do dal <laughs> kon nag sëñ Moor day mel na joxe boppam moo ko jëkke joxe sa bopp weesuwut li kon sëriñ bi yàlla da koo jagleel loo xam ne mësumaa dégg ci jamono ku mu ko jagleel sa baay gëm la dénk la boppam fa mu jëm sëñ Moor borom saam mi daq jaamu yàlla ci réew mi jébbal la boppam dénk la boppam jox la léppam say mag gëm la say baay gëm la say rakk gëm la ñëpp gëm la loolu sëñ Tuubaa rek am waye nak bi donno dara daara ji booba daara weesuwut da ngay xëyal sëriñ bi bo ngone nga dem taxani sak njël jang marax ba bayal kom sax sax mi cere lay dundal la ngay bay ko ci gerte moy rendi lolou moy dara yi normal yi nga lim lay jàngal dula forcer na faaw nga bu la alcorane alxuraan it xam-xam bindi bi la lay jox du ko toppaat sax du ci son da lay bayyi rek yow yaay def li nga man seet ñala raw nga demaat ci ñom ñu topat la ba nga dégg li nga wara a jàng loolu mooy fexe ba góorgóorlu ba dégg araf amma nak dang ko wala do ko jëf loolu yoonam wu ci kess la lay jàngal li yalla def ci mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lii def ci yow nak sa borom neena bu li di kess fexel ba li ne ci yow nga def ko ci bindé fi muy xettali te loolu nag bil himma doon waaye bu waaye bu bi dër si faqat kese kese kese jàngal naa la xam nga demal bu la neexee jëf bu la neexee bàyyi déedéet loolu xeeb na ko waaye ittiwoo gi giñ ittiwoo yàlla naa fexe ba def ko ci yéen ba ab am yàlla ak àgg ci yàlla rek di seen itti loolu yi ma sama borom digal jaarle ko jënant bi nag képp koo xam mooy si itte toogal boole njàng mi ak ittiwoo yàlla mësa tas daara mësa terem jàng ndax moom ci boppam daara la waaye dana koo xam ne boole jàng mu ànd ak ittiwoo yàlla moo la ñor toogal yaar yëpp a ngi fi koo xam ne arafe kese nga soxla waaye ittiwoo yàlla loolu moom daara yi yëpp a koy def foo dem am mën nañ laa jàngal bàyyi la nga dem sa bopp dem leen ña ci ëpp dem ñu des ñu tuut des fa ñu tuuti ñooñee ñenn ña yee ñenn ña ñëwut ñu mujj ñëw fekk si leen mu yokk ba si fii loolu boo koy seet ñaar fa rek ak juróom-ñaar la ci koor dana ko di yeesal sax di ko fàttaliku bis bi ñeebul amé ñu wax fukk ñeeku ñeeku def ñam fa fekkut ba ñewé dal yeesal day melne, ni yoon doon doxé andi gi mu andi lu yees ta xamaguñ ko dafa tax yoon wi dafa yeex lool ba dem na ba ci diwen sa ci koor ga ñu jotta cheikh seex si ñaar dama géeg yooyu yëpp ak cheikh yu jekki tambali cheikh ñu nan ki lim fi andi xamaguñ ko mu an diinu ju antukum jangale te fek dañu xamul waye mom limi <laughs> def deug deug moy jangale jang mo xam dula baye jang mi waye da ngay jang and ak jeffe and ak bëgg yalla ak top yalla mom la suñu doon wax loolu di tassaro ci ne mi ndànk-ndànk yëf yi ba ca ba ca ba ca koor ga ca topan nak atum lem mu manki tuuti ci fan cheikh abdou ne doon kon loolu ñu ne moko ñeen fukki liko waral moy nit ñi comprendre gu ñu woon li si bi jàngale moo tax yeex doxin ko gaaw yi am nay at ba ñepp xam ko dor ko xam gis ku fi ñëw bo demee ni ngay gëné say morom aajo yi faju nit ñi xeex bu dor nak di dox doxin gaaw waye do at mu jëk ma dafa yeex lolo andi ñi ñi wàññi ñepp fan wër juroom ñent lañ ba xeex bi ñew ñent fukel ko fofu lay toll kon koor gi ci ciatul koor gi ñaar fukki juroom ñaar la yoon wi sosu di dox ba ca koor ga ca topat ci ñaar fukki fan yi xeex bi door jëblu kon juróom-ñaari fan te mat teewut am na ñeen nat ñu seex comme sa gis ko ak ñeneen bi yoon wi jógee nag yàggul Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke rythme bi yoon wi awe ame doxin wu bees bi jaaxal na ñëpp am na ñu ko mënta dékku te suñ bëgguta lor kenn bëgg naa ma ne ñëpp rawatina ay bokkam ñi ko comprendre lu mu def ànd nañ ci moom waaye ñu comprendre rut jaaxle nañ te taalibe yi mayu ñu dara rawatina ni Seex Ibra dundee ak ni muy doxee ak ni mu bëgg a def sañ bi xam na ni yàlla jiital na ko te nanguwul kenn ne ci kanamam te sëñ bi bëggut bëggut kenn mer mu ne fa sifeet kër ga bàyyi leen fa njëkk a sañ ci daarul baar yi daarul baar yi mooy fi alaaji baara dëkk sëñ fallu mooy kër sëñ lu googu ci gaar bi fa njëkk a def kër bu ñu jógee mbusoo daarul baari kër la daaru salaam dëkk la waaye bu dee kër goo xam ne bokkul ci mbakke daarul baari la googu la si njëkk am ci kër waaye mujj na yëfi rythme bi àgg foo xam ne mayetuñ kenn dara mbooloo mu bees moo xam ne li ñu andi xamuñu ko te am ñoo xam ne amuñ ci sago sëñ bi te bi daa bëgg ku fonk ay bokkam wormaal leen lim leen di jox ci cër kenn xamul man daal kii man la loolu daal jaaxal ko mu daan dem Darou Salaam xanaa ko sanc dëkk ci jamono yooyu tuddi ko Darou Salaam bëgg nga jam teew nak lu jafe la woon ndax boba yit nek bi fii ñu denc maam see ant la jëkk defarum nek nek bu rëy la woon waaye bi mu bi mu di ko di ko sanc jafe-jafe ndax dafa mujj yaakaar señ Mandumbe señ dam ndax sëñ Ibra Sarr ak señ bi ñent la sëñ bi woo woo mbooloo mu mel daa xaw a jafe dana ko nee na jàpp koñ rek te ngeen wax bisimilah ci néeg bu rëy rëy boo xam ne mbooloo ko waroon yëkkati lu mu néew néew ñeent fukki ku ne jàpp koñ mu ne wax leen bisimilah rek ñu yëkkati woyof tooy ñu yëkkati néeg bi taxawal ko néeg boobu la rafaatale Cheikh Sidi Mokhtar ne ko fii si àjj fii si buntu àjjana mooy fi nga ko denc tey kon day mel ne ku mel ne maam Cheikh Ibrahima Fall Mbàkke Kajoor la ko fekk ànd ak moom Mbàkke gépp ñëw daaru salaam yeewi ko daaru ci digg armeel yi am na guy gu fa ne foofu la ko yebee mu dem seexi moom ba sëñ bi dem Touba di sañc lam njëkk def mooy wàññiloo maam Seex Anta ñi ci taalibe ñaata lañ mu ne ko juróom ñeen fukk ak juróom-ñeent mu ne ko nga téeméeral leen mu ne ko am ah, mu ne ko jox naa la loolu lépp ak dëkk bi rafaatale ko ko daa lem sañ ci kon sancub Touba sëñ bi da ko wër lu yàgg njaboot gi ne daru Salaam nit ñi ni ñuy doxee ngëm gu bees gi ak doxil lu bees yi wuuteeg liñ xamoon mbir yi boobu daanaka duñu nit daanaka duñ lekk te dañuy sax ci sikkar boobu sax njàngum xasidi mi xew xewagul sikkar la sëñ bi doon defal tudd yàlla rek waxtu mu ne da ngay tudd yàlla tudd bu ñuy bëgg julli sax dañuy digg taw di tudd yàlla di tudd yàlla ba ñàq tooy xëpp si ba kenn mu ko ne do fi nekkat mu doone ñu door la xam nga xane boy dugg julli gi day fekk nga nga sanni aduna fele do dugg ci julli gi non la doon yare boobu suñ Mor na mbacke mo mo njëkk ak sëñ mm, bok na ñu njëkk a yëkkati xasida mm. damay wax ne sëñ Mor ko na murid yëpp am nañ am nañ ci mom war nañ ko bàyyi xel ndax mo njëkk a yëkkati xasida boobu ñu bëri xamuñ luy lool mm-hmm. dañ ko da jang ni rek way yëkkati ko rek dak moko moo def daanukat yëpp it war nañoo bàyyi xel ki ñuy wax sëñ Amadou Saxir Mbay bàyyi gala mbay mu njëkk a daanu gaa ñi ne kii de damaa defe ne daa mat a wutali yëf dafa am àndandoo xëy na dafa indaalee rab ñu yóbbu ci bokk yi ñu seetal ko ay yëf te xamaguñ daanu kat xamuñu ko ab daanu ba ñu waxee sëñ sëñ bi ne waaw euh, la newoon ci sahabatu rasul yi xet gaa ko xeeñ rek moo ko indil lii dafay géej rek te xetam xeeñ ko loolu ko indil lii rasul <laughs> bi daa wax naa na ngeen góorgóorlu te xam ne saaba yi seen bàyyi ci diine sëriñ bi nag bi mu sañcee Tuuba mm, man nga ne muharram la gis barab bi wër na ko lu yàgg benn rëbb bu ñuy wax buubu ja moo ko gis ci biir àll bi muy wër rek te boobu dëkk yi bari nag nant lool mu yërëm ko defe ne ki nit nit la ni rek té bu ko bayé dañ naan dañ ko rey mu dig do xam moom ne ko man dama lay gis fi toujours rek té fi da ko xamul rek waye man mi di rëbb sax dafa waxtu mu fi ñëw gi mu fi ñëw rab yu rab yu rab yu soxora fi né dañ lay dañ lay gañ buñ la gisé sëñ bi ni ko yalla bindé mom da ko andalé li ñaan complexe mos ko am li ci mom lay wax nim ko bëgg waxé la koy wax né wa ah, dédé sans borom sans borom mo fi dig barab bo xam mom lay wër man la ko dencal te moom laay wër te fii la ne waa ji mel ni yàlla da ko dimbali mu teel a gëm di si ko ah ah xaw ma li sa borom di dencal lu mu de waaye gis naa fi garab goo xam ne ko ah mu ne ko waaw ah, mu wan ma ko mu ne ko garab gii daal mbéb gii ma gis bu may rëbb dara ba mu jam ba mu të ba dem tong fi du ko mën a jamati xam naa daal làquwaay la rawwaay la muccukaay la. man nag jaaxaloon na ma lool waaye tey laa mas a gis ku yut fi dara waaye xam naa fi fii am dara ngi fi ndax rab yep xamnañ ko bokuma ci top sax da ngay dem tong fa bo fa tongé buma la fettalee du jam du ex yow ba ba nga genn ba dem ba sori ma doon la man ray rey bi dal dafa nañ dem nga won mako la ko sun borom waxon nako nit ñin ñu bax ñepp bëgg Tuubaa waaye yow Tuubaa la bëgg moo tax mu jàppale ci yow bima exé ba ci garab gi mu ne ko gii laay wax de mu dal foofu loxom bu tedd ba tek ci sun borom addu ko fa sa sa ne ko bar bangi ngi dal koy fakku suñ bal fa li mu njëkk fa ab goppam moom la wolu mu bay la ko wër suñ bi julli fa ñaar rak ci ngon suñ mor jalla be ak mag njëkk ñëpp àndandoo defam mbaar ci dal tambali sanc ci lolu mu haram la ba ci rajab nag sanc bi dara àgg kon sëñ Moodu ci ci bi la gane aduna ñu fekk ko sëñ bi wax ko ca ci ci ca ci bi bi sanc ci bu noppé ba bañuy dugg ci kër gi wara faane ci la sëñ Fallu ñëw moo mu jurum ben weer mu xaram ba rajab noonu la ñu ragante bi mu nekkee Tuubaa nag adduna sépp di ko fekk ceddo yi dooy buur yi taalib yi ñëpp rek tubaab yi ñaaw njort ci moom lool yenn sëriñ si am ci moom tiitaange ndax seeni taalib yi ngi leen di bàyyi di ñëw ci sëñ bi te ku fi jógee boo demee yor mbooloo mu dul jeex am barke tubaab yi tiit nañ cedd it am nañ ñoo xam ne fiir nañ boole yooyu nag ak xor ñooñal gi nga xor ñooñal murid yi te du tax ñu deltu gannaaw di leen dóor di leen rey di leen def lu ne te faaliwuñ ko dëgër googu ñu dëgëroon moo indi yoon wi di màgg mag gu gaaw ci diggante boobu sëñ bi nekk fi ñetti at ci këru Tuubaa gi kër gi mooy kër gii rek nga xam ne moo ëmb kër yëpp mooy fi jumaa ji dem na ba ca barabu sëñ baara daanaka ëmb kër sëñ Abdu Lahat kër sëñ Fallu kër kër sëñ Tuubaa gi dem na ba jël kër soxna may Kubra kër kan bu rëy rëy la woon loolu Touba gépp mooy loolu booba bi mu demee ba am fa ñetti at ñeenteel nag mu dem Daaru Xuddus defaat geneen kër tudd ko Daaru Xuddus da bari lu mu fay ne lool dafa taseeg nit ñi ab diir bi muy sanc Daaru Raxmaan kër station bi këru wéetukaay ak jaamukaay yàlla ak di liir ay téeram rek la ko borom xam-xam mu dina fa dal di waxtaan ak ñoom ca xam-xam waaye defagu ngir ñëpp dafay dem rek toog fi ab diir borom xam-xam yu mu bëgg a waxtaan ak ñoom bu noppee del siwaat daaru xudus bu ñoddee jàkki daaru xudus mu ñëwaat waaye defu koon këru dëkkuwaay koo xam ne dafaa war a toog waaye li li lay xamal ne lu dul nit rek xam nga Sëñ Tuubaa bu masaa ñëw ci kër googu rab yi dañuy tàng tong ci mbagg yi picc yi ndax xam ne yërmaande gisal dañ koy ñemeloo këru Tuubaa gi fi la taalifee ra'iya waaw moom maa sig ra'iya أحد حسرة وثلاثة مئة ألف وألف من حجرة من لم يرد كروك دار القدس فلا تألف حقا يعني ما جحت كلام بابا أجنتي نعم سيد مران تزوج يوم لف بكرونة تدقن نسيم بيجوجي تدانو كو وانا نادا كوي تقبل إيه أم جانب إيه بندب دقن نسيم بي في أجلعي ما ينأكل شقبهم ah dooñu si dooñu suñu mbàkk ma rata jii may dégg kat danaa xool ba xam fu mu toll daal di bind aw këyit rek daal di ciy bind xoqa yem ca mooy testament nag di xool ba xam fu mu ndaw li bi mu see ba nuyoo fekk ne sëñ bi mott li rempli rempli li des dineer gi waaw moom xoqa rek la bind fekk sëñ bi ne albukaau ala saadatin amwaati ndax dagan na ndax jaadu na ndax yàlla na di jooy nit yàlla yi faatu si mu ne waaw abki alayhim wa arjo fil bukaay xadam ndax ñoom tabkil araadi alayhim kas samawaati <laughs> fekk na ndiki woo sëñ moom bëggoon na occasion bu mu am ba bëgg wone wane waa këram ak moom ci boppam nu ñu mar a kon buy wone nit yàlla yu jëkkee yi loolu daa jublu wane boppam ak dëgg dëgg taalibe yi ak seex yi ko topp niñ mel mooy wax foofu la ko defee بريس كرسين شامبو كرسين شامبو فلتالي في محمد سليمان بشرفي عن مزياتي كيما تاخذ زمامي للرسياتي nga xam ne boobu day woon borom xam-xam yi nag ne bu ngeen bëggee gis nag fóore ju jàng kaang kaang li ñaan kaang fóore wannu lef rek nag xool leen li ma bind bu dul baatin baag leer gaag dara ñëw leen xool nag sama sama sama rafeti rafeti nu mbind ak sama neexi arab loolu leen woon foofu ba jombal leen dama koy faral di nettali Christian boobu def na fa kiimaan koo xam ne kooku ñu daa wax mbàkke maane ci njëriñ dañ faa bokk toog sëñ bi defar xasida gi am na ku ñuy wax buuna am naar la woon comme ni ma la wax ne sëñ bi ay naar rek lay waxtaanal foofu xam-xam mu defar xasida gi ba noppi daal di ko ne jàng ko ma dégg buuna di ko jàng jàngin mu neex di ko daaj mbàkke maane nag dégg sëñ bi fi muy wax jigéen àjjana yi naan lahu najis bun ratibun xaalisun xadirun daw taraibi jaalin liddu junnaati miratu azwajiha abdaanuhunna naam isnooru abdaaniha isri sirajaati di wax nañ mel da seen yaram ya mel ratax ba nang set wecc leer leeraay goo xam ne ku ci saratoon fii ci àddina rek déeg yëpp day saf suukar kawat gi buubu nga xam ne bët yi rek boo ko xoolee mën nga cee seetu missal gi mu misaal jigéen àjjana yi nag mbàkke maa ne mëntu ko muñ mu ne ko ump li mu mën a mën nga ma leen woon wan ma leen si mi daal def ni loxoom ci suuf rek maasale mbàkke maa ne dugg àjjana di xool gis mboolum jigéen ñu bari ñu mel noonu nag mu taxaw di leen xool di leen xool waaye yéen lu ngeen wuti ñu ne ko dund suñu borom kër bu ñuy wax mbàkke maa ne la ñuy nekk mbooloo bari lañ waaye ñun rek ñoo génn fii waaye mbooloo lañ ñëpp mooy suñu jëkkër léegi nag dafa mel na lu fàddu nekkatu fi bi mu ximmili ko sëñ bi ñaan ko ci bopp bi mu dellu siwaat nekkaat nit daal ko ne ndax mën naa leen a nekk si naa ah, bu la soobee kay mu ko am baax na boroom daa far néeg leen ñooñu ba ni mu fiy jógee wutut sax hmm? déedéet xalaatu ko day seex lu ñuy ah hmm? te ba la gisee dëgg dëgg dëgg nag doo ci fii dara yéeme dañuy yéeme lool kon nag tubaa joojee képp bu ci sëñ bi yemante di mu ci géej gi doy na. Touba joojee. Mm-hmm. ñam defar boobee. Mm-hmm. seexal lim seexal. Mm-hmm. dem ba ci mujjëm nag. 1895 ci Daarul Xuddoos boobu jàkkay ban la fi tabaxoon fii suñu ma Madina ne. ca ca ca l'itikaaf boobee ci l'itikaaf ba dañuy wax ne laylu xadar googa ñaar fukk ak juróom-ñaar la moom la fanaane guddi gi ajjuma ba bët setee rek la salaa salaam ñëw ci yor-yor bi nga xam ne ñaari fan des ci koor gi wala ñett ba bët setee rek ba mu fanaanee guddi gi ba bët set ci biir liitikaaf bi la salaa salaam ñëw waxanteeg moom la mu waxanteeg moom ne ko cër bi nga am ci yàlla àgg na ci li nga doon wut muy darajee xawsul xutbu te nit yàlla yëpp moom la ñuy wut ndax boo kenn mënta am lu loolu mooy doon doon yonente bi rek <laughs> ab yonente amatul waaye nga dond ko toog fi jotaay mu ko li gañu bax ñi ñëpp amon nak tay jii nga am am nga ko bis nak tay uru uru wuru ma woon takkal te amo ñeen fukki at sax waaye dama amul ci yow sago moo ma dini ñaari wër yi nga déssé nga don ko tay tay ma topp la garaat moo ma ànd ak sama àndandoo yi ñu sargal ci la jox la dara ji <laughs> mu ne mu sant ko loolu gërem ko way xeeb loolu yi ne ko loolu lepp baax na jël naa ko téye naa ko waaye damaa bëgg baña tagot ak yow and ak ñi bok ci sa àndandoo yi nak rek ba faaw lam bëgg lepp it sëñ bi yalla daf ko may mu mu mu baña a tuut bët xam gim xam ne yàlla mën na lu ne te waxtu wu ñaanee yàlla dara ñeneen dañ ñaan li ñu koy ñaan yalla ki ñeme na ko kenn ñeme na ñaan mom xam na ne yàlla dara gërawut ci mom lam bëgg la ko ñaan rek yalla defal ko da ah, daa ñaan lu ne yalla fas ko yene may lu ne loolu rek la alam nek li la bëgg rek dogu ci xam na yalla man na lu ne dogu ci rek ah na gan de te bëgguma nga saalit wala nga yàqule te bari na ku toll fii ñu wan la ko nga gaa nga nga bëgg ko te doo ko mën a yekkati ma ne ah roogi da laa moom ndax bindu ko waaye jom ji ak ngor ji ak fit na ko mu ne ko bisimilah ñu siñante garanti mu daal di wari daa wari rek yàkkamte natt bi génn dëkk bi ndax booba nee na ko dëkk moom aar nga ko sa allahu taala min kulli makruhin ma xoof ci ci foofu lenn lu la naqari wala lu metti du la fekk ndax aar nga ko te nangu lañ la ko te it sëñ Bousso bi seen jaay di nitu yàlla bu gisee natt bi jóg dana ko jima ñaan ñu teggi ko kon nag faaw mu faatu faaw itam nga génn dëkk bi xam naa sëñ moom mënta wax ne na sëñ Bousso bi faatu waaye daal génn dem Mbàkke Bari ndax bëgg natt bi ñëw di néggandiku sëñ Bousso bi it faatu <laughs> kon toog fa kori ba dégg na sëñ Bousso bi dem na mu ñëw jaal si ko del si wax ba mu del see rek nag la ñu fi tàmbale roxale zahiri yi bóor yi di roxale سني سيغا خان اومبل لي سيغ بيتا بغ اي طالبي مر دي روخالي يفي اند اك سبب باتين بي لم نان لذان ذكري والشكر رافقة وظاهري وباطني توافقة دائما ساهر باتين لم لبلا يعند لم بننتي سيغا كوك يوننتي بي تيون ام سبب ساهر يوخنا تخنا نيجي لكو في waye lol lepp moy lam waxon ca ndar ne Amadou Ndiaye ma bi ñom ak jaxasi ci biñu biñ ci ñom nako tuba bi nenañ nga bind ñaan ñu bayila nga delu sa kër ndax xam nañ ne dañ leen a jaxase gis nañ seet nañ seet seet xam nañ li ñu wax du deug ay jaxasi la rek te lool biñ ko laataaxu bon nañ ko gënde bu fu ñu yobbu nañ ko fa lu def nañ ko ko si mi neen wax mo lu ma fi andi di bindu mako woni duma waxati lu mu fi jëli duma ko bind loolu ñu leen wax jaar ci yeen ngir bëgg ngeen wax ma bama wax lu fi jëli du ko def moom te boobu bu bindoon rek ñu naan leen dafa dafa kan ndam li mu am du ko am te moom am na fu mu dëgmal am lu mu jëm xam waaye nit xamuñu ko ci la waxee Amadou Ndiaye bi la mu ko wax téyel xasida gi naa la fekkaat ba nga wonaan ma ko bul am benn jafe-jafe demal toog damay dem waaye maa ngi ñëw mhm. loolu mooy njëlbéenu yoon yi metti lool jafe lool waaye nag ñu gëm sëñ bi sëñ bi jaral leen lu ne jaral leen seen bakkan jaral leen seen addina jaral leen seen lépp nga xam ne booba àgg na ci yoon wi foo xam ne ci yëlbeenug yoon wi ñu tas sa jabar boo jébbuloo ñu lakk sa kër boo jébbuloo ñu génn la ci dëkk booba waaye sëñ bi di joo xam te day dikki dinni nag rékki ñaawte fi yoon ci yow ak jikko yu ñaaw yi ba mu set ci diggante bu gàtt kem talaayul kooka nam na jikko yooyu meloon ca moom kii mën na fi am ñetti weer kii mën na fi am juróom-benn weer kii mën na fi am at kii mën na fi am ñetti at waaye na jikko yi meloon ci yow rek kemta laa yoon noona nañ fi yàgge waaye dana ko wekki ba mu set wecc sànni fële takkal la eh, takkal la nag jikko yu rafet yëpp ba nga ànd ak moom mu yóbbu la xiir mbooloo mi ci yow duñ ko sañ a bañ ndax kenn ku sëñ bi jox mbooloo koo xam ne sa daraja tax ñu jox la ko amul boo laajee ki ñu ki ñuy topp ne ko lu tax ñu dula topp du la wax ne daraa tax sëñ Tuubaa rek ka tax ñu dama topp ñii toppit boo leen nee lu tax ñuy toppit duñu mën a wax ne kii dara tax ñu da ko topp lu suñ tuba ndax gisuñ ci moom lu ko jar kon kii toppi sëñ bi rek tax ñiy toppi sëñ bi rek tax ndax moo def ci moom loo xam ne ku gis doo ko mën muñ da ko defee nag ba muy dem ci géej gi fekk na mu ci mbooloo loo xam ne man nga ne yoon wi dollu ko war na ci ay seex waaye li ëpp ci seex yi làq na leen door dem ci liggéey bi làq na leen doon ci liggéey bi te booba li ñenn ñi nga xam ne dañoo ñaawi xel tey wax sax nga xam ne am na ñoo xam ne ba nëgg ni reet lay jàpp sax naan suñ bi dellusiwut suñ <laughs> bi dellusiwut ba am na ñoo xam ne dañoo dem ba àgg ci bind ko sax ba suñ suñ suñ murlaa dem na ba Chicago weddi leen weddi ko bind fa xam le ne naa bi mu ñibbisee man mii ci laa gën a àdduna su doom la dafa tontu te te te xel nangu ko yënuwut wut mm-hmm. te ko koy wax ànd ko jiitloo sam xel ci li ngay wax mm-hmm. sëñ Tuubaa ñëwaatut keneen a ñëw am ñu koy wax am na ñoo xam ne àgg nañ ci sax naan sëñ Tuubaa ñëwut Tuubaa mi ngi njëriñ ana amet ah. lii leer xanaa lii leer na ah. misaal mi lay joxe am na ñu àgg ci bañ sëñ bi ba nuñu ko muñ ba sëñ bi mi ngi tu mi ngi njëriñ ñëwut Tuubaa léegi yàlla xoola ambit naar mi muñël rek ba mu àgg mu ñël rek bu fi Mahamadan mi daan noddal sëñ Tuubaa moo jur baayam Mahamadan Tandex yi mi nga xam ne sëtub yenent bi la bisum njëkkee ñëw ci sëñ Tuubaa egsi gisagut sëñ bi ne ci jàkk ji sëñ bi daa ubbi daa julli rek ci biir julli gi Mahamadan daal ne man nu may ànd ci julli kaw di nit ku ñuul te xawma sart imaam dañu ne ci moomam nit damaa war bu ma noppee sax bu ma noppee sax fay julli foofu la toll ndax xamagut sëñ bi keroog njëkk ñëw jóoy gànnaar sëñ bi it gisugu ko ci saa waaye bi sëñ bi sëlmalee daa ubbi fenêtre bi jàkkaarloog moom ne ko axbarini jadduka sallallahu alayhi wa sallam anna man salla fi xalfi fa ka annama salla xalfahu sallallahu alayhi wa sallam ne ko samaam yenent bi nee na ma loolu la ko wax samaam yenent bi nee na ma may na ma képp ku julli sama gannaaw mel nga ne ku julli ci gannaaw mi ngi nii am nañ kayit woo xam ne seeni i maam sëñ bi da caa bind wéral seenug sërif bind ko jox leen baayam ba maamam ji jur baayam moom mii moo waajal sëñ Tuubaa bi mu ñëw njariñ bi mu jógee njariñ bi ñëw tubaa xanaa loolu ñuy weddi nañ indi fa loolu moo ko dolli set fekk ko mu set mu dolli ko set maamam moo ko def ku jur baayam moo def lépp ba ko defee lii gànn doon wax sànq ci waxtaan wi naan sëriñ bi ni mu àdduna danga naan bu bëggoon addina moo koy gën a am ñëpp ndax daa xam àddina amu ci soxla sànne ko waaye lim ci jota tey da ko da ko organisé axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan loolu muy wax léegi ne néeg bu mu masane bu ne du wuti lenn fenn loolaa ci am néeg bii ñu ne Cheikh Ibra ko defar te mu wax ne sama borom ne woon na ma xalaawatul jannati foofu nga koy njëkk a mose néeg boo bii bàyyi moom mii kero bi xew-xew bi amee sëñ Basiiru moo ko jëli ka sëñ Bint maamam mu ñëw mu ne ko dañoo bëgg nga waajal sëñ bi na la sëñ Mat Laamin Jóob dimbale ak sëñ Seex Xari Jàng nijaay sëñ sëñ Seex Jóob nijaay sëñ Basiiru bokk ak ndayam nday ak baay mook sëñ Mat Laamin Jóob ñoo ànd ak naar bi na maami naar bii moo doon waajal sëñ bi ah, waaw waaw xanaa xanaa bu doon ci saahir nit nit i njorondaay nit i njorondaay nit kese kese kese ku ci amoon sax loola naqari ci sëg nit xanaa doo wasab naar di ko def loolu kon da koy da koy nëbb ndànk wut sëy bokk ñu dul wax dara ñu def ko ci suuf waaye wooye naar ba mu ñëw waajal sama maam sa baay ku amoon loo naqari da nga koy nëbb naar bi waaye ab naar ab sërif lañ wooy mu di ko waajal sëñ bi ànd ak moom ñëw Tuuba kilifa yëpp fekkee ko ñaar fukki nit ak juróom-ñetti fekkee wàccaayu maama moom bokk nañ ñu duggoon ci biir ak sëñ Mandumbe ak sëñ Mad Lamin Gay sëñ Bàkke Busa sëñ Mad Lamin Jóob ñee ko fab dugal ci biir ñee dugg ci biir génnut ñii ma la wax kon na gaañu woyofal leen tuuma yooyu yëpp te maase ci nag lenn rek laay ñaan murit yëpp ñu jàpp bu dëgër te bañ a geesu kenn te bañ a xool kenn bañ a déglu kenn te képp kuy wax lu mu war wax ci sëriñ bi ngir soxar ak bon ak añaan tey sos xam nga li ngeen koy fayee bañ leen a xool bañ leen a déglu waaw dañu leen mel leen amatuñ loolu ñu naan ko ay vie la ñu wut ko buñ ko amee ci yéen. li fi bu waxukaay goo xam bu ngeen ci déggee xam ne ñi fiy wax bëgguñ sëñ bi jaayante leen sëñ Tuubaa bu leen ko xool bu leen ci am soxla xanaa loo gisul déggoo ko doo ko tontu da leen di mën a muñ ku muñ sëñ bi muñ leen ko mu jeex képp noonu rek la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ngir topp seen chaîne Jazboul Mouride demal Google tapé Jazboul Mouride bésul benn émission mu YouTube ci page bi nga abonné te activer cloche bi ngir am notification saa ñu dugalee suñu vidéo sen chaîne Jazboul Mouride di ngeen ko amé ci Facebook Instagram Twitter jezbul morit mi ngi ci war wi ngir liggéeyal mam Cheikh Ibrahima Fall.